sénégalaise euh, tey jii mën nga ñu wax euh, lan bi nga xam ne moom nga a euh, xëy na tey ci ànd ak dal hmm. ak sérénité bu rëy hmm. ñëw def sama acte citoyen hmm. muy voté et que ci ñëw naa voté naa si jàmm fekk naa aussi vote bi mi ngi déroulé wu normalement fii ci centre de vote bu HLM Médine maa ngi voté bureau neuf Euh, di wax ni rek euh, ñëpp nañuy jóg ñëw def noonu ndax ku ci nekk rek sa carte d'identité tey moom mooy sa moo war a nekk sa arme alors ku def leneen lu dul loolu def nga loo xamante ne du sa wareef li war mooy boo amee benn position booy défendre bu jour vote jotee nga jël sa carte dem voté ji défendre foofu sa position loolu la patriote bu baax di def loolu la citoyen bu baax di def et ci loolu la ñuy woo ñëpp ànd ak dal ànd ak jàmm sori lépp luy violence wax jàmm dox jàmm voté ci jàmm bu ko defee euh, ñu mën a euh, def li nga xamante ne moom mooy njëriñu réew mi voilà. amul woon ay jafe déedéet amul woon benn jafe-jafe man voté naa si jàmm ak salaam ñëw naa en famille. voté si jàmm ak salaam. dañuy dikkaat sànq ci bi ngay voté ci biir euh, am na ay rëkk-rëkk yu fa am nga doon kaas nga dikkaatal ñu si lan la woon exactement. non kaasuma dama doon expliquer dafa am ku ñëw woote ba pare ne dafa gis ne benn enveloppe bi rek. moom la ñuy jëfandikoo ci élection municipale bi ak élection ville de Dakar loolu nag maa ne xëy na ñi jàngul tuuti euh, code électoral mën nañu poser yooyu question mais code électoral Sénégal def ne le terme municipal concerne aussi bien ville que commune par exemple boo jëlee fi nga xam ne dafa am ville ak fi nga xam ne ville dafa am ak ay communes comme Dakar la ville de Dakar le terme municipal bulletin enveloppe municipale mën nga ko jëfandikoo comme enveloppe mairie de Dakar mais mën nga ko jëfandikoo aussi comme enveloppe mairie Parcelles Assainies par exemple donc toutes les dix-neuf communes euh, de, de Dakar euh, foo ci dem benn enveloppe bi kese nga fay trouver ñu tuddee ko enveloppe municipale parce que enveloppe municipal ci terminologie électorale boo jëlee code électoral dafa concerner aussi bien ville bi que la commune loolu laa doon expliquer am na ku fa ku fi doon wax ne dafa am ay manquement mais loolu du manquement respecter loi bi la e donc kenn waru cee wax. yàgg di def la fii lañ koy defee. jërëjëf HLM euh, Grand Médine fii si Parcelles Assainies euh, comme ni ngeen ko gisee fii Parcelles Assainies ñu ñëpp ñoo bokk affaire gox la ñu ñëpp ñoo dëkk. donc euh, ñëw nañu fi fekk nañ fi représentant ay candidats yu bëri euh, xamante nañu suñu biir waxtaan fekk jàmm comme ni ñu ko doon defee euh, di ñaan aussi mu doon mu doon la même chose un peu partout parce que c'est important aujourd'hui ñu xam ne ne ginnaaw ba nit ñi nag defee seen seen campagne wax seen i programme ñu xam ne ñenn rek ñoo mën a décider mooy population yi donc population yi nañ leen mettre dans des conditions yu war a mën a tax ñu décider nañu fexe ba lu ñu mbëbët ñoom euh, bëgg ko mu war a feeñ ci urne yi mu feeñ donc loolu euh, je pense que ne mooy lu gën a am solo donc tey jour vote la jour de vérité la je pense que loolu moo am solo mais ba ñuy ba ñuy ñëw euh, dégg nañu ay rëq-rëq yu am ci ay gox yoo xamante ne lu mel ni yoof ay birig yu ñu teg di fa def ay ay ay bulletin de vote ak yenn localité yoo xamante ne dañuy jàpp ay nit ñu jël. loo xamante ne ni mooy euh, carte électeur yi di ko denc ay rëkk-rëkk yu mel noonu dañ ko war a éviter parce que yooyu ay source de violence euh, violence bu gën a metti mooy nit ko war a wote nga tere ko wote donc ñu ngi appeler vraiment à au sens de la responsabilité surtout si ñuy organiser élection yi aussi au acteurs politique xam na ne tey nag population yi ñoo war a prononcé wu ñu déglu leen rek ba xam lan la ñuy joxe incha allah. nit am nga fi fii nag moom euh, ba ñu ñëwee vraiment noté wuñu fii lu ñu war a mën a euh, ñaawlu. wax dëgg yàlla euh, en tout cas ñu fi nekk ñëpp ñoo xamante ne ne xam nañ leen te ñu nekk ay acteurs politiques jot ñu wax loo xamante ne ne problème la vote yaa ngi demee nu mu war a demee donc loolu ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu mais encore une fois bi benn centre de vote la si ay milliers et des milliers de centres de vote à travers le Sénégal vote nag pour mu am sincérité dafay fekk Euh, anam yi ñu ko war a defee ñu def ko te du am benn problème donc jàpp nañ ne su dee fii amul problème yi it war nañu fexe ba feneen tamit du am problème te loolu mooy indi sincérité vote bi. Mhm. waaw peut-être euh, gën rek yokk euh, woote bi woote jàmm rek nit ñi voté ñu génn aussi voté ñu génn voté parce que vote bi du xaw na yéex tuuti sooy xool fii da ngay voté commune. voté euh, euh, ville am na dëkk yoo xam ne dangay ngay commune voté ville voté département va et vient boobu dem ñëwaat bi dem ñëwaat bi euh, dafay tardé lu bëri moo tax euh, fu mu nii jàpp nañ ne nit ñi war nañu génn très rapidement ñu teel a voté euh, pour que mu bañ a am nit ñi bañ a dajaloo si centre de vote yi ba ñu nar a yokku délai bi te yokku délai moom ñu jàpp nañ ne du lu baax si ay élection nañ ko nañ ko nañ ko def rek si anam yoo xamante ne moom lañ ko yàgg di tënkee mu leer bëccëg ñëpp gis ñu def dépouillement yi lépp jaar si yoon. waaw salaamaaleykum maa ngi tudd Go Faye maa ngi nekk candidat alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes ici au Parcelles Assainies donc euh, ñëwoon tey def suma devoir citoyen voter di wax rek ne gis nañ ne am na quelques irrégularités mais c'est des choses dans le domaine technique mais am na yoo xamante ne ñun ñàkk jàpp naa ne du lu ñu prémédité parce que jàpp nañ ne l'administration territoriale le préfet ak sous-préfet bi ils sont là pour faire une bonne organisation organisation nag quelque fois dina am jàpp nañ ne li ñu liggéey si terrain bi ñun wane ko ba Parcelles Assainies gis ne jeunes yi dañoo déterminé pour apporter le changement jaarale ko suñu jëmu yu xeebu yi jàpp nañ ne incha allah c'est une question de formalité que ngoon incha allah on va changer de maire aux Parcelles Assainies et j'aurai l'honneur de maire de tous les Parcellois